2024 soreetul ñëpp a ngi koy samp pour mu nekk candidat ci waa APR yi ne moom day mbir liggéey ba tey ba tey waxagul ça ça ça devient serré ah ci des ba reetul xam nga président Macky Sall on a besoin de de de chef d'état comme lui moom bu waree wax lay wax mm-hmm. mais là mi ngi mi ngi jege seen échéance bi reste que onze mois waaw bu yeboo mu mu mu jege mais de toute façon du génn si délai yu mu war a euh, dépôt candidature am na te mm-hmm. dépôt candidature euh, dafa am délai mm-hmm. donc il va se prononcer. ah yow la mooy sa sa avis ci ci loolu la question du du mandat. man sama avis mooy léegi léegi je discute avec jàng naa droit mais je suis pas mhm. en droit dañuy wax ni en droit la loi est impersonnelle même bu dee consiste la loi ne vise pas une personne si constitution bi dañ ne le mandat est cinq point nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Mhm. le mandat c'est quel mandat c'est le mandat de cinq ans il a fait un mandat de cinq ans à mon avis mm-hmm. il doit pouvoir présenter sa candidature pour un deuxième mandat de cinq ans maintenant conseil constitutionnel moom mooy prononcé mm -hmm. aussi loolu côté côté bi la mais beneen côté bi mooy ñun on est dans un contexte où dañu am insécurité si ci pays yi ñu wër yëpp au niveau mondial même gis nañu ni que on est en période de risque on a un risque on on a un risque. Mhm. risque insécurité on est menacé le Sénégal est menacé léegi moom ñëpp xam nañ ko ba pare nous sommes sur la voie de l'émergence ñëpp gis nañu que même nos plus farouches opposants dañu naan ni que bu dee liggéey moom mu ngi liggéey. Mhm. mais ñun on a besoin d'un président de la pourquoi faire. c'est c'est pour nous mener vers l'émergence c'est pour satisfaire nos besoins c'est pour améliorer nos conditions de vie. moom mu ngi améliorer condition de vie sénégalais li may wax bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn couche couche population yi amul kenn comme si bàyyi. Mm-hmm. amul benn secteur du agriculture côté infrastructure lépp lépp lépp mu ngi si. mag Macky Sall être un bon président d'accord na. Euh, il est droit. un ah, d'accord yoon mën na ko permettre parce que affaire yi quoi qu'on puisse dire dese naa leer par rapport ak mandat bi parce que am na ñu naan euh, le mandat est de cinq ans foofu la war a tàmbalee wax ji am ñu jàpp ne ni nu ba fait plus loolu fekkee boobu noonu euh, mën na bañ a posé mais débat bi posé mooy par rapport ak li nga wax euh, maanaam l'état continuité la. parfaitement Macky Sall il a fait son dafa war a dem keneen ñëw maanaam États-Unis tey jii nii on va pas dire. Obama def na liy dundam les gens l'aimaient à son départ mais dafa nangu ne il fait ces deux mandats dafa war dem Bush bi muy dem il avait commencé une guerre boo xam ne eggaliwu ko fi ma bëgg wax mooy lépp ay mbébét la en fait mais à chaque fois ki ñëw après moo koy moo koy yëg mais boo ñu ne on est dans une zone à risque émergence est-ce que loolu ça ça peut justifier mu mhm. dama naan compte tenu de tout ce qui se passe compte tenu de tout ce qu'il a fait compte tenu de ses valeurs intrinsèques yi ñëpp gis sëriñ seeg ñëpp ku nekk sa àll ba koo xam ne amul woon ndox daw dafa doon rooti pour mu sangu da doon rooti pour mu mun naan mhm. compte tenu de tout ça su fekkee constitution bi jox na ko permettre na ko autoriser na mu defaat mu briguer beneen mandat justement pour que loolu bañ a bañ a nekk ci mais effectivement mu bañ a nekk c'est au-delà du deuxième mandat de cinq ans et moi je suis convaincu que bi ñuy modifier constitution bi loolu moo nekkoon bébétam parce que on on sait que il a introduit une demande pour que mandaam ñu réduire ko comme il l'avait fait moom it tient promesse lu ñuy wax ni ay ay moom dafa wax lépp lu mu wax gëm na ko su waxee dara daf koy def mais su fekkee yow déjà le mandat est en cours un mandat de sept ans mhm. nga ne conseil constitutionnel wàññi leen mu nekk cinq ans ñu ne la mënul nekk effectivement loi loi bu bees mënoo ko mënoo ko mënul agir si si kii bu passé c'est ça c'est pas rétroactif mhm. donc su waxee loolu c'est-à-dire que moom il continue son mandat de sept ans dans la constitution on a dit deux mandats on ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs et le, ce mandat là visé c'est un mandat de cinq ans C'est-à-dire que lui, il peut faire un deuxième mandat. Maintenant, après lui, personne ne pourra faire plus de deux mandats et c'est clair. Ah, et, ce et heureusement, même parce que... Oui, après lui, même le débat ne va plus se poser. Non, le débat ne va plus ah, se poser. Mais, mais avant, nous, nous, les conséquences aussi, est-ce qu'il y en a mesurer Dans la mesure où l'opposition se tient euh, prête pour dire que... Euh, mandat Macky Sall waru waru ci bokk en fait ñoom c'est ce qu'ils disent election boo xam ne opposition yëpp dinañ bokk mais le président Macky Sall moom du bokk li ma bëgg a xam ne baaxul xam bu fekkee respecté nañ Sénégalais surtout opposant yi xam ne ñoom ñoo toog wax ni que président Macky am na droit def deux mandats de cinq ans ñi wax ni que bu ma bu ñu noree wàcc di xeex man du ma kenn du ma si gis ndax am na si droit ñooñu bu ñu delloo bëgg wax nit ñi jóg leen ngeen xeex pour mu bañ a def deuxième cest ñoom sénégalais la ñu am respect. mais xoolal mooy xëccoo boobu à prix parce que ñi ciy faatu wala ñi ciy yàqule mais xëccoo du doon du doon yu mag yi. xëccoo yi moo warul te am. parce que ñoom ñi bëgg a xëccoo ne du fi def beneen mandat ñoom ils sont convaincus que am na droit def beneen mandat. mais loolu c'est-à-dire bu fekkee xam ils sont dans la manipulation ils sont dans la manipulation loolu la ñuy élection bu jot même bu dee du élection loolu la ñuy andi. pour que nit ñi suñu électeur nit ñi bañ a voter président Macky Sall alors que même de élection présidentielle excès guñ si. mais avec le président Macky Sall avec le a eu tellement d'événements mais il faut ñu arrêter manipulation bi. Uh-huh. parce que c'est c'est au prix de vies humaines. et loolu vraiment dara ko fi. c'est uh-huh. pas normal. mais lan moo ci seen responsabilité yéen yéen ñi régime bi jamono ji. ñun ban responsabilité maanaam lan ngeen war a mën a def tey jii pour que euh, calme bi euh, revenir pour yi ñu bañ ci yegg. loolu daal mooy ñi war a ñi war a veiller ñi war a imposer ordre. ñu def seen liggéey ñi war a fexe ñu appliquer loi ñoom ñu ñu ñu war a ñi war a euh, fexe ñu appliquer loi ñoom tam ñu def seen liggéey